والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وخير خدمه وأمته لي موي تيرب سن الحاج مباكي بي تدو غرب اكتوبا خادم الخديم موكو نون ديما داجالا يال نكو بروامم نانغ سي باركيم فاو خاد له الله مختار له سن بوكم تاوي سالي هو غاجا moo koy jottali ngir bëgg jullit yépp yi gën cee mën a àgg ca njariñ la ñu fàttali bala ñoo dugg ci leeral téere bi am na baat yu sëñ bi di jëfandikoo te defoon ci ak yeete akuk leeral muy baatu wér na wala wër na wala war na wala siiw na wala lii mooy gàttal gi yooyu ñu fàttaliwaat ko bi ci njëkk mooy wér na saa su ma nee wér na lool ginnaaw am nettali mooy loo xam ni doomi sëriñ Tuuba xaadaloo la Muxtaar Lo moo ko wax wala ka ko wax fekk fi sëriñ bi loolu mooy su ma nee wér na boole ci lool gi saa su ma nee wér na xam ni boolewuma ci lool mooy loo xam ni ka ko wax fekku fi sëriñ bi waaye ku wér la koo xam ni daa jële ci koo xam ni daa jële ci koo xam ni sëriñ bi moo ko wax saa su ma nee siiw na mooy loo xam ni ñu wér ñoo ko wax ñoo xam ni danañ sàmm seen diine luñ man waaye sax dégguñ ci koo xam ni daa dégg ci sëriñ bi saa su ma nee wër na mooy lu wër lu fu bari ñu koy wax ña koy nettali mën nañoo wér mën nañoo bañ a wér yu mel noonu nag léeg am yeneen yu ko gën a mën a wéral waaye ku gis loo xaw a safaanoog moom te wér mën nga ko wàcc saa su ma nee loolu mooy gàttal gi mooy dagg naa lu bari ci lu dul waxe sëriñ bi ci nettali bi wala mu bari nuñ koy nettalee ma jël nettali ba ca gën a gàtt wallahu taala alam mooy yi nga xamee ni yeete la yoo xam ni téere yu njëkk yee amoon na ca yi nag noonu lañ ko ciy leerale ngir ku ko déggoon te jot miin waxin yooyu mu jàpp ni lool mooy wuuteeg wér na lool wala wér na wala wër na wala siiw na wala loolu mooy gàttal yi ba tey it léeg téere bi am ñu ci gis loo xam ni danga koy laajaat ngir bëgg ci ak leeral wala ñu am loo xam ni da leen ci jaaxal ban bëgg ci ay gëstu loolu képp koo xam ne da ngaa bëgg a jokkoog ba xam ci lu leer man ngaa jokkoog sëñ malik mi nga xam ni moom la sëñ alhaji mbàkke teg yooyu ci loxoom ma nga nekk ci këram gee ci yoonu daru muxti wa waaye lii mooy numéro téléphone insha allahu képp ku jokkoog moom rek da nga ko mën a jot benn bi mooy 77 976 20 97 bi nga xamee ni nag moom tigo la mooy 76 695 06 45 numéro yi daal képp ku ci jokkoo ak sëñ Malick mi nga xamee ni moo yor wàllu téere yooyu yooyu maanaam bu dee loo ci leerlu ci yooyu wala loo xam ni da nga leeral gan am allah boo jokkoo moom ci numéro yooyu lu leer téere yi nag doon yu yoo xam ni jullit yi ñu ngi ko bu wér a wér ñuy ñaanal suñu alxaaji mbakke mi nga xamee ni moom la ko yàlla jaaree ci loxoom sëriñ Tuubaa def ko muy ab liggéeyam boo xam ni moom la ci liggéeyal sëñ bi waxe woon ci nuur dañ di ko ñaan yaa jaailan xatt ya fawqa warni wasanna xayri yaa xasimal man ni yàlla na ko sëriñ Tuubaa defale noonu moom it ci am mbindam yàlla nañ sunu borom boole ñun ñëpp ñi koy digloog ñi koy jàngaleeg ñi koy jàng ñi koy tasaareeg sunu borom may ñu taalibe di ñaanal it sunu mbokk mi nga xamee ni day sonn jamono yu nekk ci tasaare gi muy sëñ mustapha Thiam ci njaareem ak ñeneen ñu mel ni ki moom yàlla neen sunu borom defal ak taalibe guñ nangu بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه خر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بوكي جلدي بوكي تالوبي يدير سواتي وقتاني سرين توبا خاد لولا ومقتا لهون ينكو باقو دهي تينا نجلين دي أنيل تيري سنج الهاجي مباك ابن سنج مصطفى حفصة بمده سنج بمك بنيكو يوح غارة بوك muy xaajub ñaareel bi téere bi nag fii la tàmbalee aoudu billahi min alcheytaani rajim wa inni uhizuha bika wa zurriyataha min alcheytaani rajim rabbi aoudu bika min hamadati shayatin wa aoudu bika rabbi an yahdurun bismillahi arrahmani irrahim allahuma bihaqi wajhi llahi taala alkarim صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناس الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقدار الحسيم صلاة وسلاما وبركة تأخذ بها للشيخ الخديم القائل ظلالي إلى جنات باخ توسعت وكلي ومالي سان حام مشذ ما اخترت ورددت له في الحال والمآل عونك يا معين وبك نستعين ñëw ci nettali bu njëkk bi muy sëriñ Masamba Kandi radiallahu taala anhu mas naa wax ab taalubeem bi ñuy wax ahmadu ñoom ni ko basiiru mii nañu ko yóbbul ca sëriñ Tuubaa xaada lawo ko ba mu ko fobee ba yegsi ci sëriñ bi wàcce ko ni ko sëriñ ma Masamba Kandi nee na ñu dolli ko ñaan ndax dañu koy bëgg a yóbbu ca nijaayam sëriñ Moor Penda mu jàng alxuraan sëriñ bi ni ko ba ngeen tollee nee la sama xel dem ci siré bi ko sëriñ bi di ñaanal bi mu tegee loxoom ci boppam daa sedd lool ba mu yépp di ko yëg ñaan ga nangu lool ba nga xam ni bi mu mokkalee alxuraan téere ba mu doon jànge kayit wu ci ne xam na faxat wa tàmmulee ak fa mu yem siiw na loolu mooy barkeb sëriñ Tuubaa xaadalawoo law maxtaaralawoo kii nag day doomi sëriñ Siré Lo radiyallahu taala anhu moo tax sëriñ bi di wax loolu fi mu ne léeg-léeg nga gis lu yéeme ci waay ba defe ni ci moom la te ñaanug mag rekk la moo tax war nañuy góor-góorlu di sàkkul ñaan sunu njaboot ci képp ku ñu yaakaar barke ci moom loolu dana leen dimbale lool bu ñu nekkee mag te mel na ni ñaanu boroom barke goneel la gën a mën a dal ndax amul benn bàkkaar buy dox diggam ak ñaan gi walla alam sëriñ tuuba xaada lahoo laahu maxtaar lahoo nee na yoon wu ma mësa ñëw jamono lakkum laa fi am defar jamono dellu lakkum mooy juróom ñeen fukki at xëy na la jublu waaye wii yoon lahum laa fi am lahum mooy juróom fukki at ak juróom xëy na la jublu siiw na loolu yi dañuy xamal sëriñ bi bari na lool lu mu daan dikk jamono ba di ñu xamal day wéy di dikkaat jamono ilaa yawmil xiyaama leeral loolu itam ci ay mbindam yu bari waaye lim boobu mu wax moo xam la mu ca bari na lool nag ak soppiku moo tax kenn wërta gis jenn wax ci moom ba tax nga doyadil jeneen fi mu ne bu ñuy jàng alxuraan danañu gis sàngara fu mu koy limaale ci xéewal yi gisaat fu mu koy limaale ci xaraam yi wala alam mas nanoo laaj Serigne Touba xaadalawoo law maxtaaralawoo na xasida yi mën naa tege ci kaw alxuraan mu ni leen doom xanaa fu ndeja nekk mën naa nekk ca gannaaw ga wër ko sëriñ bi ni xasida yi alxuraan moo ko jur kon mën naa tege ci kawam siiw na war ñoo xam ne alxuraan am mbóot la waaye lii nekk ci kayit yi ay xarab la sëriñ bi itam wax na ni li wax lépp ca lawhul mahfuus la koy toxale ni nga xamee ne alxuraan foofee la jóge kon dëgg-dëgg alxuraan sax mooy mbindum sëriñ bi yaquudu rabbul alamin liya bi xayril alamin sirral kitaabi bil amin wa lii bil afdali ba tey man alhaaji xaarimul xadim maa ngi laaj yonente yi alayhimu ak seeni ndey kan moo gën walaw Sëriñ Tuubaa xaada lahoo law maxtaar lahoo daana wax dikk leen ma wax leen ko ci wolof ci wolof lañu koy xame siiw na wa ma arsalna min rasulin illa bi lisaani xawmihi li yubayyina lahum Sëriñ Tuubaa xaada lahoo law maxtaar lahoo sunu boroom subhaanahu wa taala da ko andi ngir mu dimbale xeet wépp waaye nag ak ay nitam looloo tax waxtaan yi mu daan def nga xam ni ci la njariñ yi nekk ci wolof la ko daan wax walaaw alam ci jamonoy sëñ Tub Tuuba mas nañoo andil sëriñ Tuuba xaada la wala maxtaaloo addiye ju bari mu jox ko sëriñ Mandumbe ni ko suulal ma ko mu sool ko fii bërëb bi nekk bi sëriñ Tuuba xaada la wala maxtaara lahoo jullee tisbaar ba salmal ni ko Ahmadu xanaa lama la suuloo woon suuloo ko déggoo yuuxoo mi noonu mu ni ko déedéet ñu ànd dikk ba fa mu ko suuloon te mooy fi jumaa ji nekk sëriñ bi ne ko sullil te dem ba ca gannaaw xàllu jolof wa nga suul ko fa te dellu si fekk ma fii bi mu ñëwee sëriñ bi ne ko pax mii suulaat ko mu suul ko mu ne ko xanaa xamoo ni asamaan sépp ñaari bunt la benn baa ngi tiim kaaba ga benn baa ngi tiim fii sunu borom subhaanahu wa taala bu lottoon dencukaay fii nga taxaw la koy def yàlla nag deful kuy lot bay wut dencukaay bu muy fàggandikoo ngir ëllëg lii séerees loolu mooy fi la wàcc ahlu badrin rat fi ahlu badrin te di leen firandi rat mooy tak firandi mooy maam tekki te du leen firandi mukk te taxa ñuy siraat ahmadu li ngeen bëgg di ko wuti ndarake ndakaaru diir bu gàtt da ngeen romanteeg moom fii te du ngeen ko faale atteb jamono jépp itam dikk na fi fajant bi di fenke ak fa muy soxe dana mujj lu ñu fi atte te dikkuñu fii atte boobee du wéy so so mooy mooy ak jant bu muuru mooy jant bu so liggéey bi ma fiy liggéey lu itam nit dana bàyyi ko Màkka ak Madina ak mbooleem réew yi ngir xool ci liggéey bi siiw na nettali bi bokk na ci lu muy jàngal am murit Sëriñ Tuubaa xaadaloo loo maxtaarloo xam na li ñëw lépp xaalis am na ci yoo xam ni wareesu leen di jëfandikoo keneen itam wareesu ko bàyyi mu koy jëfandikoo nga xam ni kon suur rekk moo ci sës tuubaa itam am na tàmbalikaay waaye amul yemukaay boo gisee fi mu ne loolu mu tudd ci ndar ak ndakaaru fi mu lépp agsi na ba man mii di bind maa ngi dégg fii tuubaa ñu jóge ndar ak ndakaaru di fi wut si ay yëf ci bis bu set bokk na ci li seetlu itam mépp meññit mu ñor ñoo koy njëkk a mus dëkk ba mu ñore te lay gën a yombe itam te loolu mooy man li ma fekke ci at yi may bind lii la ca kanam nag yàlla xam ba tey ñaari bunt yooyu mu wax am na beneen nettali boo xam ni bindoon naa ko mu nuroog bii lool waaye boobee benn bunt la wax sëriñ bi nag leera na ci ay mbindam luy xamle bu wér ni kax baga dees na ko indi fii Tuubaa xaj na bu loolu amee mooy tax mu nekk benn bunt walaw alam Sëriñ Tuubaa xaada laxoo law maxtaara laxoo bi mu sancee dëkk bi xaal la fi njëkk a bay fii armeel yi nekk xaal joojee ba mu ñoree da ko xaaj ñaari xaaj jox góor ña seen wàll ni yéen fas leen ci yéenee mucc ci gunge yéefar yu góor yi jëm sawara jox jigéen ña seen wàll ni leen fas leen ci yenee mucc ci gunge yéefar yu jigéen yi jëm sawara xaalis sëriñ bi fonkoon na ko daana ko yi tam fi muy jàppe ba mu nekkee njareem ba tey njëkk gi mu njëkk a bàyyi xaal ci dëkk bi ñun murid yi war nañoo xam ni kon baax na lool ci kër wala dëkk bu ñu bëgg a sanc am na ñuy wax ni ñamu àjjana la waaye yaakaar naa lool ni mbooleem meññiit yi nekk fii am na foofee ba tey loolu Sëriñ Tuubaa xaadaloo loo wax ni fas leen leen yéen ci nangam day tegtal ni lu dagan boo koy jëfandikoo loo ci fas sunu borom subhanahu wa taala mën na la koo defal rawante naag buli ko kilifa goo yaakaar barkeem joxe danañu fàttaliku loolee yonente bi salallahu taala ali bi alihi wasa bi waxoon ni basante lépp loo ko jëfandikoo ngir moom mën na ca dara waaye nag yonente bi salallahu taala wa li tax tudd lenn lu dul basante ci ñuy jëfandikoo loolu am na lu muy tegtale moomin maa ngi dégg ñu naan ñamu àjjana la moo gura wala alam ginnaaw xaarja suuna la fi njëkk a bayaat suuna soose ba ñu ko bayee dañ ko fa jaag jaag mooy jal ba muy waaj a tawaat mu dóor ko bojjulu ba mu koy bojjulu soxna Faati Kanni lawoo taawub sëriñ Momar Mamor Jaara ak soxna Faati Kura ñooñu la jiituloon ñuy bojju dugub ja Sëriñ Tuubaa xaadalaw la maxtaaloo dani leen fa jaag ba nekkoon la bëgg ñu bojj ko fa te beraat ko fa bañ ko bojjee ber ko foofee mu ni leen natta leen ma ko ñu ko muy ñetti mata ay bërigo lay tollool am na ñu xam lool lim bi ci ay bërigo ak àndaar ñetti mata la ak andaar àndaar ay kilo la am na ñu ko xam lool Sëriñ Tuubaa xaadalaw la wax ni ruu yi digganteeg sama borom noonu la toll lu tol noonu saa su fi dikkee ñu taxañ asamaan seeg suuf si am na ñu ni saa su dekkee dekkee dikkee mooy ñëw dekkee mooy dekki su ko defee mbind mi ma ko sottee moom dekkee la bind li tax may leeral loolu daa am sew-sew bu ci nekk bu fekkee dekkee la kon li muy tegtale mooy bu lim boobu matee adduna tukki bu dee dikkee la lim boobu dana mat lu yàgg ba adduna tukki ba yowmal xiyaam taxaw ba lim boobu dekki ñu door a taxañ suuf si ak asamaan wala alam mel na ni nag lim boobu tëkkuwul ci li ñuy gis ci saahir rek ndax fu am murit faatoo ci adduna dana ñëw tuubaa ki ni ko sëriñ bi leerale ci yeneen waxtaan ñëw googu nag dana am ci saahir te mooy lii ñuy def di jële ko faatu ndakaar ak ndar di ko indi tuubaa dana am itam ci baatin loolu ñu bari nee nañu malaaka yi alayhimu salaam ñoo koy def am na sax ñuy jàll bay wax ni guddik alxamis gu nekk lay doon ba tey lii sëriñ bi doon digal soxna yii te ñuy ay kilifa danañu xamal ni nit bala nga ko jariñ faw nga liggéeyloo ko ndax coono yi ci lay mën a jariñoo kon ñun murid yi lu jamono soppiku soppiku war nañuy jéem a sonal sunuy njaboot ci loo xam ni dana leen amal njariñ walaw alam Sëriñ Tuubaa xaadalawoo law maxtaaralawoo mas nay defarloo maam Cheikh Ibra attaaya mu koy xelee loxob càmmooñ sëriñ bi ni ko xanaa xamoo ni loxob càmmooñ kenn du ci liggéeye mu ni ko yow cër yépp la war a liggéeyal nettali bi nag yàlla xam waaye man jàpp naa ni sëriñ bi attaaya dawu ko xelli ñu bari am na daal nettali bu ma ci mas a dégg mu koy xelliloo sëriñ Basiiru doomam radiyallahu taala kon loolu dana wéral kon ni sëriñ bi daana xelelu attaaya ndax nettali booba moom bu wér la bii nag bu siiw la su ko defee sëriñ bi bari na lu mu daan nattu taalibe yi ci xeeti jëfin ak waxin xëy na lu mel nii ci loola lay aju wala alam sëriñ Tuubaa xaadalawoo law maxtaaralawoo mas nay julli ji fekk maam Cheikh summi ku ba set taxaw ci yoon wi muy jaar bi sëriñ bi yemee ci moom ni ko lii loo ci jublu mu ni ko yow loo xool mu barkeel ma bëgg nga xool sama lépp wër na maam cheikh radiallahu taala anu ay jëfinam ca jamono yamuy door a ànd ak sëriñ bi yéeme woon na lool loolu moo waraloon ñu bari daan ko coow di ko tudde ab dof yu mel nii itam ak li ñuy wax ci taab bi sëriñ bi amoon te mu muucu dereja ngir xër gu ëpp ci sëriñ bi mën naa bokk ca yooya waaye lu man di xew war nañoo xam ni maam Cheikh radiyallahu anhu li mu doon def xam na ko lool walaw alam ñu ñu ci nettali fukk bi sëriñ Tuuba xaada lahoo laahu maxtaara lahoo mas naa rëdd aw rëdd wax ni ku ko jéggi ñëw jéggi ko sëriñ bi laaj ko mu ni ko man yow rekk laa bëgg bëgguma ajjana wër na sëriñ Tuuba xaada lahoo maxtaara lahoo ci ak sopp ci la awoon دين يحب الله مع حب الذي عدا قمع أك أحببت رب العالمين أعطيت حب المصطفى وأكتفي بساك ببيد وجه الوجه الذي يحبني يبيض أقلوب من لم يحبوني على وجل موتاح وقتو نيك لولا موي جارين ابتالو بيم تي موم باتاي لي مام شيخ ديف رادي لا تانو دانيو تكتالني فمو اندك سيرين بي ياغنا لول ولو اعلم am na ku mës a ñëw ci sëriñ Tuuba xaadalawoo lawu maxtaara lawoo jox ko ndox bëgg mu ñaanal soxnaam su tawat sëriñ bi ñaanal ko mu dem dikkaat ni ko faatu na kër ga sax daa mel ni luy bëgg a gént ngir faatu gu bari sëriñ bi ni ko kër googee ak kër gii ak kër yéppay gént siiw na kon ñaan gu nangu du caagée ni mooy nga am la nga doon ñaan déedéet lan mooy ñaan gu nangu ñaan gu nangu mooy nga am la gën ci yaw ca waxtu wa mu gën ci yow gis nga taalibe bii bi muy dikk ci sëriñ tuuba xaada lawo law maxtaar lawo daa bëggoon soxnaam si di dund te fekk na li gën ci moom mooy mu faatu gis naa ci mbind sëriñ bi fu muy xamle ni du sàkku ci boroomam subhaanahu wa lu dul la mu ko tànnal du sàkkul kenn ci boroomam lu dul la mu ko tànnal loolu li ko waral mooy tànnug yàlla subhaanahu wa taala ku ñu ko leeraloon ba nga xam ko doo sàkkul lenn lu dul moom moo tax man alhaaji xaadimul xadim saa borom ma bu may ñaanal sëriñ bi loolu rekk laa koy ñaanal te mooy xaada lahoo laahu maxtaara lahoo walaahu alam bismillahi rahmaani rahim ñoo ci nettali fukk bi ak ñaar am na kilifa ak gu masa jébbalu ci sëriñ Tuubaa xaada lahu laaw maxtaara lahu mu mu laaj ko noo tudd mu ni ko daawuda sëriñ bi ni ko danga am doom ju tudd suleymaana su manee dox du la fekk jamono wa warita suleymaanu daawuda alayhim wasalaam am na lu lu lu ma xamee ci biir nettali bi loolu mooy tur lu amoon bu yàgg la ci tuk yàlla subhaanahu wa taala innaanu bashiruka bi xulaamin ismuhu yaxya alayhi salaam ci misali yonante bi salallahu taala ali bi alihi wasa bi wasalama ka ko doon tudde tur wii mouhamad xamutoon ni sunu borom moo ko ko tudde woon bu yàgg lu mel nii feeñoon na ci yeneen nettali boo xoolee jataayi texe naar boobee sëriñ bi doon wax yaa aba isaaq ba tey lii ko sëriñ bi wax su manee dox du la fekk jamono day leeral inna kulla cheyin xalaqnaahu bi xadar lépp sotti na waaye am na ay weer ak ay àpp yu muy xaar mu door a xew wallahu alam am na ku mas wax Sëriñ Tuuba xaada lawo law ni ko soxnaam daa am doom fekk sëriñ bi yor ab kaamil di jàng mu ni ko lu mu am mu ni ko jigéen sëriñ bi ni ko nañu ko tudde yeesi siiw na ci nettali bi laa xam ni sëriñ bi daana tudde yeesi xëy na da koo fekk mu toll ci saar woowu wala alam waaye wépp tur woo xam ni mas na koo tudde ci làmmiñam du yam ak tur mu tuddul ba faaw loolu itam sëriñ Saalihu doomam radiallahu taala anhu moo ko wax walaaw alam sëriñ Tuubaa xaadaloo walaaw maxtaar loo mas naa wax ndax xaali moori bàyyi na fi góor ñu ni ko déedéet fekk bàyyi na fi doom ju góor ñu ko koy nëbb sëriñ bi ni barkeb xaali moori dem na ca jigéen ña siiw na seetal loolu rekk defe nga ni sëriñ Tuubaa xaadaloo law maxtaar loxo mi yàlla may ruuyi ku koy nëbb dara mën naa am waaye doomu aadama moo dul mat faaw te sëriñ bi ni ñu ko xamee léegi wuute na lool lool lool ak bu njëkk ba tey danañu jànge ci lii sëriñ bi wax ni barke bu ko sunu boroom joxe nit dootu ko nangu di ko yóbbu waaye da koy toxal maa ngi tuub waaye yaakaar naa ni nit buy bëgg a faatu te yor barke te am ci ak njabootam ku ko mën a yor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 déggal sëriñ Tuuba li mu wax fa ñu yaroo waxul fa ñu mokkale loolu dañuy xamal ni ab yar mooy lépp kon ñun ñi jàngale war nañuy jéem a amub yar ndax loolu képp mooy njariñul mokkal alxuraan wala alam am na naar bu tuddoon muxtaar wul bulul ab jàngale katub xam-xam la woon bu mag ca gànnaar baayam da koo féetale woon ak sëriñ Tuuba xaadalawo law maxtaar lawoo nee na mas nañoo toog sëriñ bi mu wax ni nañu ko may may mooy nan ko yaatal muy bëgg a jóg sëriñ bi ni ko toogal mu toog sëriñ bi ni ko sunu borom subhaanahu wa taala nee na ma la tànnal mu ni ko duma tànn tànnal ma sëriñ bi ni ixtartu lil muxtaari maxtaarahul muxtaaru lil muxtaari tànnal na muxtaar la yàlla tànn la yonante bi alayhi salaatu wasalaam daal di andi soow mu sedd jox ko siiw na naar boobu nee sëriñ tubaa xaadalawo law maxtaar lawoo bu daan wax xarab du ci am benn coona day wax waxin wu gaaw te yomb ko ci biir loolu dañañu leeral ni sëriñ tubaa xaadalawo law maxtaar lawoo lu mu def sunu borom subhaanahu wa moo ko ko defloo lu mu waxit moo ko ko waxloo ba tey naar bi li mu def am njàng la ci ñun morit yi yépp ndax bàyyi ak tànn mooy li gën ci am murid te sax daa bokk ci liy matal murit gi wa mahawoo salabu lixtiyaari li xusni zannihi bila inkaari loolu sëriñ bi wax ni ixtartu lil muxtaari ba wax ja jeex xam nga guddi gi de ñaanu yonante bi sallallahu taala alayhi wa alihi wa sahbihi soow la ko sunu borom subhanahu wa taala tànnal ci naan yi walaw alam sëriñ tuuba xaada lahoo law maxtaar lahoo daana jubbantil naari seeni xarab bi mu nekkee gànnaar li ko waral da koo jàng xam ko xamin wu wér ba noppi sax ci bis bu set ji di ci liggéeyal yonente bi sallallahu taala ali bi wa ba mujj sunu borom may ko ci lu mu moyul kenn ci zahir ak baatin ñun ñii di ko liggéeyal war nañu jéem a xam wala fii bu wér ndax ci moom lañu topp walla alam soxna xëri penda radiallahu taala anha kañu ko bàyyile mas naa gane sëriñ Tuubaa xaadalaw la maxtaaralawoo mu koy ganale ni ko gan gi fonk naa ko lool ndax yonante bi sallallahu taala ali bi ali wasabi wa salama daa fonkoon goro tàngalal ko kafe ci loxo boppam siiw na kon sëriñ bi yonante bi sallallahu taala ali bi ali wasabi wa salama la daan roy ci lépp loo gis mu wax ko wala mu def ko ci moom la jóge moo xam gis nga ko ci téere yi wala déet ndax jamono bu nekk day taxoog yonante bi sallallahu taala alayhi bi ali wa sabi wa sallama wala alam nettalib soxna fatija ci bi sanci touba radde lahu taala hanhu. ci atum wasasin muy atum junni ak ñetti téeméer ak juróom ben 1306 dafa jóge daru salam dik bi muy dik anana ku ñuy wax serigne mor hafsalo serigne ja golbe serigne ibrahima jey wala ja serigne omar soose serigne masamba kandi busa sëriñ Ibrahima Bousso sëriñ Mayasin Oumy Niang sëriñ Mbacke Ramata sëriñ Abdourahman Lo ñii la àndal léemu ci Touba. feefee jumaa ji nekk guddi keroog la fa njëkk a fanaan booba nag am na guy gu nekkoon fii kër sëriñ fa lu nekk mu léemu ko fii barabu sëriñ bi nekk tey ak mbépp moo fi nekkoon mbépp garab la gu tudd noonu fi la sëriñ Touba xaadaloo la maxtaaraloo fanaan mook sëriñ Mor Hafsaloo ak sëriñ Abdourahman Lo radiallahu taala anuma ña ca des mu yebal leen faguy googee nga xam ni gaynde ñi dañu leen di wër ba asamaan set bi ñu xëyee sëriñ bi wax sëriñ Abdourahman Lo wutal ma sawara wu tànga sama satala gi ba mu nugg nugg mooy xaw a tàng mu jug wuti saw sëriñ bi fettasi ko mu jëm penku mu dox tuuti yem ci ay pël pël xeetu nit lañ yuy ratt meew mu ñaan leen sawara ñu may ko ba mu dellusee ba ñu julli fajar ba sëlmal ne tuut pël yooyee jaar fa may leen soow ma ñu doon rat sëriñ Tuubaa xaadalaw la maxtaaloo ni leen man ngeen koo jëfandikoo ba ñu noppee sëriñ bi reye ni leen li ngeen jëfandikoo ci pël yi am ngeen ci kumpa kumpa mooy mbir mu leerut man am ngeen ci ak lëndam am ngeen ci lu leerut pël yi kat ay jàngal lañu jàngal mooy koo xam ni danga reer ba regg sox sag fital ba mu baax di wër ci guddi gi koo dajal rey ko jël alalam pël yooyu xeet woowa lan woon na fi mu ne dañoo rey woon nit jël seeni alal nag yooyee dañu ko jële ci ay nit waaye li ñuy jël jël alali jàmbur fanaan gii ñu fanaan fii ci ñun ba ba ñuy faatoog seen nag yii ba ba ñuy raaf muy raaf mooy jeex tàkk lu laal ci ñoom xaraam na sawara ndax guddi gii ñu bokk fanaan ak ñun fii ahlu barir da leen a wër ba asamaan set ba yoor yoor jotee nag nga xam ni ña fanaanoon ca guy ga dikk nañu sëriñ bi ni nee na dama leen a bëgg xamal ñeenti buum yi jëm ci sunu borom subhanahu wa toog leen ab diir te ànd akuk dal buum yooyee mooy xam yàlla ak ragal yàlla ak jaamu yàlla ak àgg ci yàlla xam yàlla moo di xam li muy digle ak li muy tere ragal yàlla moo di ragal def lu muy tere te sax ci li muy digle jaamu yàlla sax ci li muy digle ba fàtte li muy tere mooy laa taqaf na jawta àgg ci yàlla mooy sax ci li muy digle bàyyi li muy tere ba say cër fàtte ko foofu mooy waatul buyoota min abwaabiha ku ci yegg dugal nañu la ci néeg bi nga xam ni ku ci duggati doo jaari ci bunt bu la dof yi ak teraanga ji ak mucc gi ci lépp luy lore da wut la ñu ni leen waatul bu yoo tamit ab waa bihaa néeg bi daa am bunt jaar leen ci bunt ba wér na soxna si radiallahu taala anu nee na lii la leen njëkk digal ci Tuubaa sanc bi nag am na juróom benn weer yoo xam ni weer wu nekk ñu mbaar menn mbaar ba muy juróom benn mbaar ci biir juróom benn weer yooyu Sëriñ Tuubaa xaadale la maxtaloo dani bu bu ñu fi wal wal mooy dugg dëbb dugub bu ñu fi dëbbee kuur lu ñu fi jëfandikoo nañu koy dëbbe Daaru Salaam dama fee def liimaay guy bañ dëbb fee juróom benn weer liimaay mooy muslaay dafay def muslaay goo xam daal ba gudd dëbb man daanaka li may déggee léeg-léeg damay doyog waar ba duma ko mën a bind waaye war nañoo xam ni Sëriñ Tuubaa xaadalowoo la maxtaaralowoo tuuba ñor na ko lool ñaareel ba ndigali yàlla yi ak tereyeem yi ñor na ko lool nettali baa ngi murit bu nekk mën na cee xame lu kenn mënta takk ci ay xam-xam saahir ak baatin waaye ci kaw settantal ndax ina fi dhalika la ayatin lil mutawassimin walaw alam nettali soxna fatija radiallahu taala hanu ci gëstu bi ñu doon def daarul mannaan da am guddi goo xam reer ba noppi sëriñ Tuubaa xaadalaw la maxtar génn woote ba ñu dajee mu ni am na gan yu fi ñëw suba waaye ku ñu fekk nga tëdd bu mu la jaral jug ku ñu fekk nga taxaw bu mu la jaral dem fenn dañu dikk ba dem bantub xat sax du damu daa di joxe xasire gu ñuy wax yallaahu inni ilaykal yawma yallaahu ab xil wasilata bil muxtaari yallaahu maa ngi sàkko ku ko am mu dimbali ma ci wax ni nañu ko jàng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 bañuy ñuy julliwaat fajar lañu door a jeex wér na cey sëriñ Tuubaa xaada lëxoo maxtaar lëxoo loolu am na kilifa gu wax ni moom la sëriñ bi di junj ci way wii ngir sant yàlla subhaanahu wa taala badadali chamla aduwin xaasimi rabbi bi jaahil mustafa ni haashimi soxna Faati Ja radiallahu taala anhu nee na bi sëriñ Tuubaa xaada lëxoo law maxtaar lëxoo nekkee jolof mas naa yónnee ñaari fas wax ni benn bi naa ci war bi ci des soxna faati kan mi ñu fekk ko jolof soxna si nee na am na ku nekkoon jolof ku ñuy wax jaraaf gaynaago bi nga xamee ni boroom ndar woon sëriñ bi te moom pël la woon bu bari alal ba xamul kenn ab yoor yoor mu dikk wax ni daa bëgg a gis sëriñ bi ñu wan ko ko sëriñ Tuubaa xaadala wala maxtaaraloo ni ko lu doonoon say tànk mu ni ko mooy xamal la ko kii lawoo ak càgganteem ak dooleem ndax dama dégg ni dalaa woo te wuy woo ma defe ni daa am lu la ump ci moom sëriñ bi ni ko jaraaf sama digganteeg ñoo ñii dama yaakaar ni am na loo mën a lijjanti lu du loolu sama digganteeg ñooñu ngay lijjanti walub gimiñ la dana mokk dana tiis du tànqal kenn te du am tuuru xëy na du tuuru la bëgg a wax jaraaf ko mii la yàlla booleel ba nga yenn ñépp yàlla teqale leen tey jii ku am ab sarax bëgg koo saraxe dana ko denc diir bu gàtt nga soxla ko jaraaf xaqtaay daal di dem bi nga xamee ne Sëriñ Tuubaa xaada lawo law maxtaar lawo dem na ci cukki bi ba ñëw njaareem jaraaf jóge jolof Sëriñ Tuubaa xaada lawo law maxtaar xamal gi ko boroomam xamal mujj mbir yi mu tax na mu mën a muñ loo xam ni moom képp moo ko mën a muñ sunu boroom it subhaanahu wa taala may na ko ci jikko ju rafet loo xam ni kenn amu ko kudul yonante bi sallallahu taala alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama xame ni kàddu lu rëy la mën naa teral nit bu gaaw mën na ko toroxal bu gaaw yal nañu yàlla dimbalee li ñuy wax lépp di liggéeyab Serigne Touba xaadalawoo law maxtaaralawoo fawo ba tey loolu nga gis mu ko doon def loo Serigne Abdourahman Lo radiallahu taanahu da ci xame ni sëriñ bi mbir mu nekk am na ñu mu ci daan taamu loolu nag baax na lool ci kilifa gu ñuy topp ndax dana weral benn juyoo wala coow du am ci say nit bu ñëpp maasee xam ni sëriñ diw mooy def nangam kenn du xëccoog moom loola sayduna jibril alayhi salaam moo yor waxyu gi sayduna mikaayil alayhi salaam moo ndox mi sayduna israfil alayhi salaam mooy wal boft bi sayduna asrail alayhi salaam mooy rocc ruuyi muy wéy walaaw alam ñu ci nettalib ñaar fukk bi ak ñeent soxna fati dia radiallahu taala anha nee na sëriñ tuuba xaade lao lao maxtaar lao nee na ko gaboŋ la ma fa nekk lépp tubaa bi ñoo ma daan rootal ba na fi sëriñ moduloo mu dagana ñëwe nee na ko li tax ñu yóbbu ma fa foofee mooy daa am daa am kutt yu fa nekk kutt mooy yuñ matte yoo xam ne ku ñu matt lu mel ni siburu moo lay def yoxoos ba kero ngay faatu te it xolandoom ya fa nekk dañuy jëfandikoo doomu aadama loolu moo taxoon nu yóbbu ko fa Sëriñ Tuubaa xaada lëxoo laahu maxtaar lëxoo nee na ko tubaab yi jigéen ñi bu ñu masaan a xëy dañu may wër sàppe ngir xaalis ak wurus wi ñu ma daan yet ma leen koy sànni loolu moo tax ba ma fay jóge ñoom ñëpp dañu doon jooy mel ni seen mbokk daa faatu Sëriñ Tuubaa xaada nee na ko diirub la ma fa nekk kenn laa fa masa a mooy daba sëy soxna si yelli sëy yaayam tudd xawaa u yelli sëy daa jébbalu woon ci sëriñ bi moo doon xuloog tubaab ya bis ba ñu dindee la sëriñ bi defoon muy nuru jàkka wér na sëriñ tuubaa xaada lahullahu maxtaloo nee na ko ba ñu ma tooñee foofee tooñ gu fés sunu borom subhaanahu wa taala wan leen foofee lu tax ñu tàggoog seeni firgën xëy na mooy fit am na ci ñu faatu am na ñoo xam ni ba ñu yeggee la yàkkamtee gis luy ndox ak saabu ginnaaw loolu lañu daje am ku ñu jiital mel ni ku bëgg a man ba ñu waxee ba noppi ma ni leen ñooñu ngeen gis ba ñu yóbbu seeni firgeen ndigal lañuy diglu te kenn digalu leen ñu jëm si ci yéen munu ko kon baye boo ngeen ànd akuk dal te xam ni kenn du leen def dara ndax yi yéen bakkan képp ngeen di jëfandikoo lu mu leen digal ngeen def ko ñooñu ngeen gis ba ñu yóbbu seeni firgan nag am nañu kilifa te duñu bëtt ndigal de feeg digalee fu leen ñu jëm si ci yéen ñu jëm si ci yéen te kenn digalu leen ko lii moo tax ñu dem ànd ak jàmm su ko defee dama xamul soxna si radiyallahu day junj feeñu kax lu bari radiyallahu taala anhum wala déet waaye tuddul ci biir nettali bi ahlu badrin teewul itam ñuy nettali ci nettali yu wér feeñuk ahlu badrin ci Libreville capitalu Gabon yasaralil muna lada libar wali man qaadali ma gaaba han kulli wali li qaada ahlu badrin asuda man zahsahal waashiya wal hasuda إلى نصرنا قد ساره مع قيولهم وخاف العدا منهم ومالوا إلى السلام واو كاي بيدوي ممجة واخ ومالوا إلى السلام موي جنة أهل بدر لا رضي الله تعالى عنهم نخصونا سي رضي الله تعالى عنهم واخنا تي بير نتالي بي نيو بغا جوغو مام تلولوم موي مهنام ومالوا إلى السلام ولا أعلم أم نبي سرين توبا خادلو مختار له di génn lu bañwaar kanalik wax ni da ciy def ay téere ba ñu tàmbulee génne mu tàmbulee taw sëriñ bi ni fataat leen dañoo defa ni dama bëggum ndox siiw na alamani manil bariyata fatar wali yaquudu maa bi baaliya xatar muy lu tokk samam xel rek sunu boroom defal ma ko mel na ni malaaka alayhimu sunu boroom subhanahu wa taala a jox ndigal ci ñuy defal sëriñ bi xaada la wala maxtaara lépp lu mu bëgg loolu mooy waral lépp lu muy jëm ñuy jéem a dàkk ak bëggam di ko def wala alam jumaa yi njaareem ci fukki fani xarit lay yegg sëriñ Tuubaa xaada la wala maxtaara tëjlu ko ba ca kori wa mu wax ni nañu bay pénc mi ba ñu ko defee mu door fa julli ñaari rakkaay kori xutba génn ca biti siiw na bi ñuy liggéey jumaa yi nag bari woon na ñuy wax ni sëriñ Touba xaadalaw la maxtaar diglewu ko taalibe yi ñoo ci dàkk ak bëggam ba am na ñu ci daawul nangoo def seen alal moo tax kori googu sëriñ bi wax na foofe ba mu génnee liggéey bi ma doon liggéeylu laa leen bëgg a xamal ni am na ñu ni maa ko santaane am ñu wax ni santaane ko ma bëgg leen cee xamal lu leer tey jullikaay bi ma fa doon ba ma defoon ca Gabon te nasaraan yi buddi woon ko sànni foofa la ma sama boroom sante woon tabax bii nee ma séeréer liggéey booba mooy tabax bii tey ku ci amoon ndigal te liggéey ci dugal nañu ci xorom boo xam ni kenn du la ca fekk ku ci amoon ndigal te liggéeyoo ci ñàkk nga loo xam ni ba ba ngay tàbbi suuf dootoo ko am dana leen xamal lu gàtt ci liggéey bi du jàkka de jumaa ëpp na jàkk ëpp na jumaa su doon amu mani ma ni li ahlil ardi mooy wuccu muccuwaayub ñooñ suuf wa misbaahun li ahli samaay te làmpum ñooñ asamaan lay tudd ba ba ñuy taxañ asamaan seeg suuf si siiw na Sëriñ Tuubaa xaadalawoo la maxtaarlawoo balaa jëm ci dara da ciy am ndigal ba noppi door caa jëm lu muy digle def ko moo gën ci ab taalube def ndigal yépp waaye doomu aadama daa bindoo manqué moo tax waxtu wu nekk ngay gis ñuy góor góorlu ci ay ndigalam ak ñu ci dul góor góorlu waaye li gën ci ab taalibe bu déggee ñu ni sëriñ bi nee na nangam mu gaaw jëm ca ndax seytaane daa gaaw lool ci yàq am xel te fi ne loolu yi ñuy digle boo ko defee doonte sëriñ bi li diglewu ko du tee ñu fay la bu fekkee moo ko digle fay ga gën a bari yal nañu yàlla dimbulee ci topp ndigali sëriñ bi walla alam